Seck ak pap Diouf ñëpp daal ci Tunkara comme ni nga dal ci Tunkara keroog man dama lay tuddé nitu dëgg moom tay tey dama bëgg ñëw def zapping wax ci soirée de gala pap Diouf marine nationale wax ci soirée de gala wali Balago sec bi mu def fële King Fahd wax ci mam Goor Diazaka mi attaqué Cheikh Bamba Dièye dafa melni ni mam Mame Goor mom moy avocat APR moo pare foofu ma wax ci malade. teram xurum xaax Wally Seck ak Pape Diouf ñëpp gis nañ ne fan yi pas am problème def audio bi mais je dama gis ñoom ñaar ñu def ñaari soirée de gala mu réussir Pape Diouf toj na marine la xaw ma wàcce vraiment soirée de gala boo xam ne dafa bëri ay nit te li il jot a seetaan minutes que mais salle bi dafa di faut dafa ne Pape Diouf dafa am public nañu waxante dëgg Wally Seck tamit ñu wane ko fële King Fahd soirée bu classe c'est vrai que dafa mel ne Pape Diouf moo ëpp nit mais foofu tamit nit ñi dañoo jug di bouger ñu gis Wally Seck encore une fois mu wane ne moom ku baax la générosité am yëkkati un million mais que famille euh, journaliste bi gaañoo defe naa te mu sant bi tey Youssou Ndour tamit gis nañ ko Gambie inauguration pont Farafeñe bi mu woy fa woo mat ndeysaan woy fa Sénégal rek dafa mel ne ñetti artistes yooyu rek la ñuy gis ci événement yi ndax Viviane aussi gisoon nañ ko ci euh, fële cérémonie d'investiture Macky Sall donc dafa mel ne ñeenti artistes yooyu rek la ñu gis ñoom ñooy def soirée de gala yi pourquoi yeneen artistes yi. mënuñu jóg. ana Alioune Mbaye Nder yeneen artistes yi ana Sidi Diop. léegi lii dafay wane ne vraiment ñii ce sont les ténors. Diouf boo gisee ñu ciy wax du question concurrence ndax audio bi ba mu génnee ba léegi ñëpp gis nañ ne diggante bi dafa xajam mais pourtant Youssou Ndour dañ ko fi daan wax ay wax yu gën a grave Youssou Ndour day baale di jéggale moo tax tamit ñu ngi ñaan Thione Seck Papa Thione mu nga xam ne Papa Thione lañ koy tuddee moom it génn problème bi am ak Pape Diouf mu jéem ko jeexal mu baale mu génn mu ne ah man de Pape Diouf sama doom la xam naa ne ba muy wax waxul ak man wala boog mu baal ko bu dee man lay waxal baal naa ko affaire bi sedd ay du yem ci bopp borom man bu may comparer Pape Diouf ak ak Wally Seck musicalement laay wax sànq ne Wally Seck moo nekk ci kaw dama koy wax damay far faruma waaw ñoom ñaar ñëpp ce sont des stars léegi su ma jógee foofu ma dem ci Mame Gor Diazaka vraiment Mame Gor dama ko xaw a yërëm fan yi parce que man dama gis ne li muy defal APR yëpp man APR laay militaire mais gisuma fenn fu kenn génnee daal ko remercier waaw nag pour man du yoon mam góor man yàgg naa ko attaqué ndax lan bu génnee di attaqué Sénégalais yi moom dinaa ko attaqué waaw bu génnee di dal Papa Thion man dinaa ko dal foofu tamit ñu ngi ñaan Papa Thion mu baal ko ndax gis nañ Wally Seck nu muy invité booy Diazaka ci seenam Tafa Diazaka mu invité ko Tafa Diazaka ñëw woy même Guine Thiès bu fekkee ne war ngeen mën a toog ci table ngeen discuter mu jeex parce que Sénégal ñun yenn yi xamuñu Cheikh Bamba Dièye opposant la bu génn ñu laaj ko ci affaire violence bi maanaam xeex yeeg yooyu ci élection yi mu ne loolu Macky Sall moo ko def gisagu leen dara lii ñëw mooy gën a métti mam góor gi jasaaka laa gis mu génn mu tontu ko parce que ñun Sénégal rek la am Sénégal moo ñu ñor kon mam góor bu defee lu rafet vraiment dañ ko war a saluer waaw Mame Gor je pense que waa APR quand même war nañ ko jox gëddëm parce que il se fait beaucoup d'ennemis ngir président Macky Sall mam Gor Diazaka tey sécurité bu génnee di dox Sénégal mais mën nañ ko agresser pour jeexal Karim Xrum Xax dafa génnoon fa yii la di dal ci Fou Malade lu tax parce que Fou Malade dafa def publicité terre mu ne dañ ko ci fay 750 000 moom ak Matador mu ne yéen vraiment da woor wor askan wi mais ñu gisaat mu génn di tagg kilifa ndax kilifa dañ ko jox 15 millions ci benn programme bu ñuy tuddee DER programme Macky Sall man ne këram xurum xaax bu di wax dafa naan def kilifa xaalis boobu wala boo boo ko nangoo nga def ñu fuumalaat ndax man fuumalaat li ma koy dal man au moins am na benn mérite moom nëbbutuwul buñ ko fay 750 000 am na courage mu génn ne fay am na courage mu génn ne ah man TFM fey na ma dañ may fay nëbbutuwul parce que am na benn programme tamit boo xam ne artistes yi lañ koy jagleel euh, euh, man ci moom sax laa ko ne euh, ci Fou Malade mu ne boo nekkee artiste mën nga dem ak sa carte BSDA gouvernement bi mën na la financé xaw ma kan moo lay financer nga dem sa gox nga def fay affaire mais kanam xurum xàpp li mu war a def mooy. ci tunkara comme ni nga dal ci tunkara man dama lay tuddee nitu dëgg. wax nga dëgg parce que Tounkara moo génnoon di wax Macky Sall lii Macky Sall laa gis naa si émission bi nga mujj def léegi 30 minutes ensemble émission bu baax parce que foofu dëgg nga fa wax nga ne Tounkara dafa ne woon Sonko lay àndal moo la ko wax ba pare ñëw daal di ànd ak Macky Sall waaw man loolu boo koy def dinaa la tuddee nitu dëgg. mais nga ñëw di raay kilifa mais kilifa dafa waroon wax sénégalais yi ne eh jël naa 15 millions. yéen Sénégalais yi dem leen am na programme bu baax ba di ko nëbb mu fësal ko Karim Xurum Xax ba fi Ousmane Tunkara Koura màkki feeñal ko ah ne moom dafa bëgg liggéey Koura màkki bàyyi ma lay saaga su ma lay saaga président màkki dina xam ne yow ku bëgg màkki nga comme ça mag yow ñuy def business mais Karim Xurum Xax lu tax daloo si Tunkara